الله أكبر الله ñu ngi sant ki yeeyoo ñu sant ko ñu ngi sant ki nga xam ne day bégal jaamam yi ko gëm jaam yooyu nga xam ne dañuy taxawee ay jaamu yàlla yu feddeleku borom boobu ñu koy sant bépp cant dellu na ci moom ci xiwalam yi ak yërmandem bi bi mu jagleel jaamam yi ko gëm kon borom boobu ñu ngi koy seedeel ne moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko yaakaar ko wékku ci moom bàyyee ko suñuy mbir yaakaar ko yooyu yépp moom moo ko wéetee ñu ngi koy seedeel ne ki ko doy doy nañu tànn ko yónni ko jox ko téere yebal ko ci ñun mu ne nañ ko bëgg sopp ko topp ko roy ko kon doy nañu ñu ngi taxaw ci ndigalam mbokk jullit yi ñu ngi leen di dénk ragal yàlla ak fogaru waaj waajtaay bu mat sëkk ngir ñu gatandu weeru koor wi fees dell ak barke kon dañ koy gatandoo jaamu yàlla yoo xam ne daf ñuy dimbale yokk suñuy ngëm yëkkati suñuy daraja ba ñu mun a am liñ ñu dikk ci koor mooy at taqwa mooy ragal ko moom borom bi subhaanahu wa moytu ay tereem borom boobu leeralal nañu jëf yi ñuy yóbbee ca yooya mu junjal ñu fii ay aaya yoo xam ne war nañu taxaw settantal lan lay firi borom bi ne ñu tuubkat yi jaamukatu yàlla yi santkat yi woorkat yi ñay ruku di sujud ñiy digle njëkk di tere safaan ñii sàmm di moytu digaaleb yàlla bi mu ne ñii dey bégal leen ñii nañ leen bégal ne ñu ngi cib jàmm cib yiw ak ci yoon jaamu yàlla yi nañu xool aaya yii lan lay wax ak lan lay junju aaya yii dey dina nooyal xol waaye dina defar ay cër waaye dina jàngale ab yiw boo xam ne daf lay jëriñ ci àdduna jëriñ la ci àllaaxira bokk na ca jàngat yooya nga xam ne jaamu yàlla yu ñuy taxawee la mooy tuub dellu ci borom bi at taa ibuun tuub dellu ci borom bi la koy tuubloo mooy ragal ay bàkkaar yu mu taxawee ak ay njuumte yoo xam ne dab na ko ak nangu ne moom borom bi subhaanahu wa am na àq bu dox seen diggante moom jaam beeg borom bi te àq boobu mooy jaam bi na jaamu borom bi te bu mu ko boole kenn loolu mooy tuub dellu ci borom bi subhaanahu wa taala bàyyi lépp lu mu tere kon loolu mooy nooy nangu borom bi ne tuub dey bi borom bi subhaanahu wa di nangu mooy ñi nga xam ne dañuy def safaan te xamuñu ko woon walla ci càggante buñ ko fàttalee koo gaaw dal di tuub mu ne ñooñu dey yàlla dina leen nangul seen tuub ndaxte borom bi subhaanahu wa taala ko xam la te xereñ ñaareel bi al abidun ña nga xam ne dañuy jaamu yàlla mbokk yi jaamu yàlla moo tax ñu indi fi doomu aadama mooy illatul xalq képp ku taxaw def ko dina fekk jaanam wàcc na borom bi subhaanahu ne ñu doomu aadama ak jinne indeewuma leen fii ci aduna dul nañ ma jaamu kon al kon foog ñu doonu jaam di jaamu borom bi subhaanahu wa taala ñetteel bi alhamidun foog ñuy sant yàlla loolu la ñuy tàmbalee fatiha alhamdulillahi rabbil alamin loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu la mun a dab rek alhamdulillah ala kulli haal kon foog ñu nekk ñuy sant yàlla sant yàlla boobu nag mooy nangul yàlla ngëneelam ci yow ak yërmandeem ci situation boo mën a ne nangul yàlla ne am na ci yow ngëneel ak yërmande te moom yàlla moo yeyoo ñu sant ko ci lu mu mun a def lu mu mun a def rek yow jaam bi li la war mooy alhamdulillah kon ci la jaam bi war a taxaw kon kàddu gi ku ko wax rekk mu ngi jaamu borom bi subhanahu wa taala asaihun te ñu firee ko ñenn ñi mooy koor yi nga xam ne dañuy woor te mbokk yi xam ngeen ne koor day ñoddil nit ki ragal yàlla bokk na ci li borom bi wax ne moo tax mu faratal koor la allakum tattaquun kon koor googu nga xam ne dalay ñoddil ragal yàlla waaye dalay faral say bàkkaar koor googu nga xam ne yàlla moo koy feyal boppam yàlla mooy feyal boppam képp kuy woor yonent bi sallallahu alayhi leeralal ñu ne ci waxu borom bi di hadiisul qudsi borom bi ne na bépp jëf bu doomu aadama di jëf ñeel na ko moom illa sawm lu dul koor koor nag fa innahu li waa ana ajizi bi koor moom man yàlla maa ko moom te maa koy feyal sama bopp képp ku ko taxawee kon loolu laaj na waajtaay waajtaay bu mat mat nag waajtaay ci jikko waajtaay ci taxawaay waajtaay ci waxin waajtaay ci colin waajtaay ci melo waajtaay ci tabe waajtaay ci jéggaleeg jëllale waajtaay ci sàngu sutura waajtaay ci sori lépp loo xam ne rekk borom bi subhaanahu wa bañ na ko mbaa sib na ko ngir mu mun a bokk ci yiw boobu nga xam ne yàlla moo koy feyal boppam juróomeel bi mooy julli mu tudd ci ñaari ponk arraakiuuna saajiduun looloo tax ñaar yooyu ñu xaraamal ko kudul dul borom bi subhaanahu wa taala laa yurkau li ahdin illa allah wala yusjadu li ahdin illa allah du ñu rukuwal kenn kudul dul wa taala du ñu raamal kenn ku dul wa taala moo tax mu ne ñi nga xam ne dañuy fonk loolu def ko te borom bi subhaanahu wa taala dugal ko ci biir ci biir julli kon nekk na ñaari ponk yoo xam ne ci julli la bokk te bu ñu fàttee nag yonent bi sallallahu alayhi mu ne nit ki bu faatoo ñu koy hisaab di ko atte lañuy ñuy tàmbalee diggante nit keeg boromam mooy assola julli la ñuy tàmbalee lu ñuy njëkk a tàmbalee rek mooy julli xool leen julli malaaka yi indi registre bi xool mu doon julli wala daawul julli mu ko doon manoon na ko wala munu ko woon ca jàkka la ko doon defee wala fan yittewoo na ko wala yittewoo ko bu dee manqué na tuuti mu ne xool leen nawaafil lii ñu dal di ko mottali mu ne leen jeex na ku taxawee jaamu yàlla bii ba mu sotti la ca gannaaw mooy gën a rafet baleen ko texe na bu dee safaan ba itam mu ne ku sàgganee lii ba baaxut la ca gannaaw mooy gën a bon bàyyi leen ko mu texewati moo tax ña tàbbi woon safara ba ñu leen laajee lu leen tàbbal safara lañu ñu leen njëkk a laajte at mi wuñu loolu la ñu wax maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin waaw yéen lu leen dugal safara daawuñu julli naam amaan na daawuñu julli amaan na ñu ngi julli julli bu baaxut na ñu ngi julli julli bu baaxut julli bu ànd ak bokkaale julli boo xam ne yaa ko sosal sa bopp julli boo xam ne daa ànd ak njistal kon yooyu yëpp baaxut julli boo xam ne niroowul ak bu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam def yooyu yëpp baaxut kon mbokk yi borom bi subhanahu wa joxoñ na fi ñaari mbir nañ ci bàyyi xel de bokk na ci ñaari mbir yi nga xam ne moo gën a jafe ci julli mooy ar ruku moo gën a jafe ci lépp lu nit di def ci biir julli ruku moo gën a jafe ak sujud ndaxte lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko naka lañu koy dal di defee waaye bokk na ci gën a jafe borom bi ba muy tudd julli mu tànn ñaar yooyu kon nañ ci nañ ci bàyyi xel looloo tax borom bi subhanahu wa taala ne ñu julli boobu dey këpp ku ko fonk rek taxawee ko julli bee lay defar julli bi ngay julli moo lay defar moo lay tere lu bon moo lay tere rëy moolaay laay tere siis moo tere soxor moolaay tere moo laay tere moo tere ndaxte yaa ngi julli di am bés bu ne rendez-vous ak sa borom bi subhanahu wa juróomi rendez-vous foo sujuut foofu nga gën a jege borom bi subhanahu wa taala borom bi nañu digal ko yonentu bi sallallahu alayhi wa mu ne leen jàngal leen li ma wàccee ci yow jàngal leen nanga nga jàng ñu dégg utulu maa uhiya ilay li nga xam ne wàccee nañ ko ci yow jàngal ko nit ñi muy mu jóge ci alquranul karim boo ca noppee wa aqimi salaa na taxawal julli na leen ko jàngal na leen ci soññ na ko yittewoo mbokk yi xoolal ponk islaam juróom yi li ci is li ci julli am beneen amu ko julli wutal nañ ko place mooy jàkka defar ko ba mu jekk ñu wuutal ko nit kuy toog di fàttali nit ñi ne waxtu wi jot na mooy noddukat bi ñu wuutal ko imaam boo xam ne bu jotee mooy jàll ca kanam jiite nit ñi ñu koy roy mu leen di jàngal naka lañuy ñuy jullee kon am ban ponk moo am lii ci biir islaam mooy julli kon julli du caaxaan kon képp ku ko fonk rek borom bi nee na dina la xañ ak safaan kon lii nga xam ne mooy julli tanha anil fahshaa'i wal munkar day tere lu bon day tere loo xam ne borom bi bëggu ko mu ne waay waay na ngeen yëg nag lan moo gën a màgg tudd yàlla ban tudd yàlla moo gën a màgg allahu akbar amaam allah li solo ban ban tudd yàlla moo gën a màgg loolu nga xam ne mooy as-salaa salaa ci boppam mooy tudd yàlla ba nga jàkkaarloog borom bi ba yëkkati say loxo ne ko yaa màgg amatoo leneen lépp màggal borom bi la moo xam fatiha la xam ngeen maani yi moo xam aaya yi ngay tànn gannaaw fatiha changement booy def danga nga fet di liwaat ne yàlla mooy kii màgg te loo ca defit tudd borom bi subhanahu wa taala ngay def kon wala zikrullahi akbar kon julli moo gën a màgg donte am na ñu koy firee piriin boo xam ne wérut ñooy wax ne julli amul solo toog di tudd yàlla moo ëpp solo subhanallah xanaa du lugal arabia la ñuy wax walla zikrullahi akbar lan la borom bi subhanahu wa taala waxoon Muusa alayhi salaam wa aqimi sola li zikri boo ma buggee tudd dëgg-dëgg mu ne waaw mu ne kàbbaral boo ma buggee tudd kàbbaral këpp ko yaakaar fii ne am na kàddu yooyu wax moo xam Allah moo xam moo xam moo xam nga bàyyi julli wallaay boo faatoo nga xam boo faatoo ba ñu laaj la yow sa julli anam sa registre julli anam loo ci def kon nga xam kon mbokk yi nañu settantal waxinu borom bi subhaanahu wa taala borom bi nag mel ni kuy tëkku wallahu yaalamu ma tasnaun yàlla mu ne man xam naa li ngeen di def de kon yàlla mu ne xam na suñuy jëf kon nañu fox gaaw tuub borom bi subhaanahu wa taala jéggal ñu ndaxte day jéggale di jéllale juróom-benneel bi digle njëkk tere safaan ba donte société yu bari rey nañu loolu société yu bari loolu dañ koo rey te nag digle njëkk tere safaan ci la di nit di génnee boromam ci la nit di génnee moromam nit ci digle njëkk tere safaan lay génnee moromam ci la xeet di génnee beneen ci digle njekk tere safaan buñ ko sàgganee rek ñun ñépp ñu ngi ci ay jafe-jafe ndaxte ci digle njekk tere safaan ci la ñuy amee jàmm ci société bu laab ci la société di laabee ci lay baaxee looloo tax borom bi subhaanahu wa taala wax ñu ne yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat yéen xeetu muhammad mu ne waaw mu ne yéen a gën ci xeet yi bépp yonent bu fi mos a jaar ak xeetam yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam aku xeetam ñoo gën lan lañ leen gënee taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah ndaxte da ngeen di digle njekk da ngeen di tere safaan te da gëm yàlla kon mbokk yi buñ ko yitte woo rek jàmm day dal di day dal di am te day dal di yaatu suñ ko sàgganee rek ñu ngi ci ay jafe-jafe ndaxte ku nekk day demee xelam day jëf lu ko neex juróom-ñaareel bi ñu sàmm digle yàlla yi digle yàlla yi mooy wal xaafizuuna li hududillah digle yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi mu ne na ngeen xam ne alaa li kulli malikin himan alaa inna himallahi maharimu mu ne buur bu am na foo yem buur bu ne nag am na xam ne boo fa ñëwee da ngay taxaw mbaa yaram tàng mu ne tabaraka wa taala nag digle yi mu wax nang fa yem mbaa yaram tàng mooy yi mu kon aaya yi wax nañ ne wal xaafizuuna li hududillah kon yooyu dañ koy sàmm nuñ koy sàmmee al iltizaamu bil awaamir wal ibtiaadu ani nawaahi mooy dañuy saxoo def ndigal sori ab tere dañuy saxoo def ndigal sori ab tere ku ko def rek sàmm nga ko yàlla leeralal ñu mu ne na ngeen ko moytu de tilka hududullah mu ne na ngeen xam ne foofu mooy rëddub yàlla bi mu wax ne nang fa yem képp ku ko romb nag tooñ nga sa bopp jafe-jafe boo fa fekk yow yaa tooñ sa bopp fépp foo gis bind nañ fa interdit boo fa jaaree lu la fa fekk yaa ko def yow mii dina fekk yaa ko def lu ñu la def yeeyoo nga ko parce que yaa ko def fii bu fi dugg nga dugg fa fii bu fi jaar nga jaar fa lii bu ko wax nga wax ko lii bu ko laal nga laal ko yaa boo seetee seetantal da nga gis na yaa lor sa bopp borom bi nag daa am loolu daa am loolu mu ne foofu kenn bu mu fa jëm bu dee wax bu ko wax bu dee laal bu ko laal bu dee xool bu ko xool bu dee dem bu fa dem kon borom bi tabaraka wa taala tere na la ko mu ne bu fa dem foofu sens interdit la kon yooyu ku ci wommatu rek dina fekk jaar na ci yoonu texe juróom-ñetteel bi ki def yépp juróom-ñetti tomb yépp ku ko def borom bi ne kooku day bégal leen ko wa bashiril muminin nanga nga bégal ñan ñi gëm yàlla mu ne ndaxte lii ku gëm yàlla rek moo ko mun a moo ko mun a respecté ñooñu nag mooy ñi nga xam ne dajale nañu juróom-ñetti yépp dal di ko respecté muy ab njàngale boo xam ne daa bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala ñooñooy ñi gëm yàlla ñi yeyoo nañ leen bégal ne dañuy tàbbi aljanna kon yii bépp jullit da ci war a bàyyi xel teeroo ko weeru koor weeru koor ñëw fekk yaa ngi laab yaa ngi jub yaa ngi wommatu yaa ngi jaar ci yoon wi yaa ngi def ay ndigal yaa ngi bàyyi ay tere yaa ngi sori lool lool lool lépp lu borom bi subhaanahu tere weeru koor fekkee la loolu nga nekk ku laab kii mooy ki nga xam ne bu sooboo ci weeru koor borom bi subhaanahu wa yokkal ko mu am sababu koor mooy at taqwa mu am ragal borom bi subhaanahu wa kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci anam yii kon ay fan yu des tuuti moo des rekk ñu jëm ci koor kon nañu tàggatu tàggatoog mbaax tàggatoog jéggle jëllile woyof tabe baax di xelaat lu baax di digle lu baax di jëf lu baax di santaane lu baax loolu képp ku ko def boo sooboo ci weeru koor bi idnillah sa takunu min utaqaai naar da ngay bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di gorel ci safara kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala boole ci yiw bu màgg booba ibadallah istaghfirullaha tabaraka wa taala wa sallu ala habibihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walafafa walghina ya rahmanu ya rahimu ya dhal jalali wal ikram rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون